à Cité 205 Cité bu guy gi à Cité 205 Cité 205 mooy njool bi Cité bu guy gi mooy ay waay Cité 205 tur na laay naa Cité 205 tur na ko mu taanu oh Konek 205 baa ngi noonu ndeysaan Konek 205 baa ngi noonu ndeysaan xale baa ngi noonu xale baa ngi noonu xale baa ngi nii kii mooy Cité bu 205 Cité a ngi noonu ndeysaan Cité a ngi noonu ndeysaan ay waay si taa ngi noonu ndeysaan côté 205 baa ngi noonu xale baa ngi noonu ndeysaan gis nga la muy def waaw waaw ay waay si si taa la ñu bëgg ndeysaan si taa ngi noonu xale baa ngi noonu oxo nee naa kii moo nekk 205 xale baa ngi noonu ndeysaan attention c'est suus suus waaw waaw attention si tamu 205